gannaaw ba li xew ci Sénégal gi xewee muy ku ne xam na ko feebar boobu nekkoon ci àddina bi yàlla def muy law ba ak ci Sénégal ñu koy wax Covid 19 eh, di coronavirus bu xew nag eh, ñu ñëw seet si ci suñ mbokk parce que ku ne dégg na président de la République ne ñëpp nañu jóg pour ju xeex ak virus bi nga xamante ni dugg na suñu réew mi. donc kenn ku nekk daw jëm ci say mbokk comme fii la ñu dëkk nag muy département Nioro ñu daw ñëw département Nioro fekk si euh, suñu waa commune muy Kër Maba Jaxu foofu la ñu njëkkee wax naa ko léegi ci district bi euh, Kër Maba la ñu njëkkee la ñu am mu néew mu bari ci matériel lu jëm ci ay gel lu jëm ci euh, ay madar lu jëm ci ay eau de javel lu jëm ci ay gants ñu baaxe leen ko pour que ñoom ci poste de santé bi nga xam ne commune Kër ba dafa ëmb 59 villages ñu mën a euh, préparer euh, jël seen i matukaay ba nga xam ne danañ mën a euh, wër commune bi yëpp pour di saytu nit ñiy dugg ak nit ñiy génn ak seen wér-gu-yaram ñu tegal leen ci aussi benn enveloppe boo xam ne dinañ ci mën a jënd carburant. boo xam ne danañ ko mën di def seen ambulance bi aussi ak ci ci ci ci seen oto pour di mën a def euh, circuit boobu mais du ñu yem foofu danañ dem ci yeneen post de santé yi nekk ci commune bi parce que lu mel ni ñeseen wàllu am na lu mel ni euh, ci le grand aussi am na euh, moo tax ñu njëkkee tey commune Kër ba commune Kër Maba Jaxu ci bom poste de santé bu mag bi nga xam ne moo ëmb ñëpp bi ñu paree foofu ci li ñu ñëw ñooro bi ñu ñëwee Nioro aussi may remercier euh, au passage euh, chef district bi ndax mu ngi def liggéey bu am importance mu defal ñu moom itamit le point au niveau du département wane ne benn cas amagul ci département Nioro te ñu ngi ñaan yàlla euh, bu mu fi am te li xew Sénégal aussi mu génn fi chef district bi aussi xamal ñu ne ñoom jël nañ seeni matukaay bu yàgg xaaruñu sax. avant kenn di ñëw jël nañ seen matuwaay depuis seen ministre de tutelle joxe ndigal la ñu dem ci frontières yi dem ci district yi euh, poste de santé yi nekk ci département bi yëpp saytu leen jox leen ay matukaay pour fu ñuy raxasoo kuy dugg ci hôpital yi ak kuy génn ndax mbir mi cet la àndal donc ñu koy sant ñun tamit ñu ñëwoon remettre nañ ko léegi euh, benn chèque ci bureau boo xam ne suñu modeste contribution la moom tamit pour mu boole ko ci xeex bi nga xamante ne ni ci lay xeex feebar boobu ñuy wax corona ba ba mu dugg ci sunu département bi di Nioro dem nañu aussi poste Kër Ayib euh, occasion la pour que ma remercier waale sax l'honorable député Jéema Ndiaye Ba bi nga xam ne ñëwoon na démb aussi euh, ci district bi indi ndimbalu responsable politique gu département yëpp ci seen njiit di Mamad Ba di directeur général bu APROSI di responsable politique bu mag ci département Nioro bi def ci dimbal bu am solo ñu ñëw dimbalee ko district bi donc ñu ñëw fii ci poste Kër Ayib tey nag ànd ak honorable député chef district ñëw seet si frontière bi donte dugg bi ak génn bi euh, ñoom ñu ngi koy saytu nu mu waree di raxasu ba mu set euh, aussi am nañu seen matériel yi nga xam ne la ñuy contrôler température nit ñi ñuy dugg ak ñuy génn jël seen numéro téléphone seen i coordonnées fu ñu jógee fu ñu jëm ba bu ëllëgee lu mën a xew ñu man leen di euh, woo téléphone waaye yàlla mu ngi def suturaa ngi am gis nañ aussi euh, chef de post bi nekk poste Kër Ayib le chef de village la gendarmerie gare routière bi les imams ñoom ñëpp ànd nañu ñoom dem seeti ko euh, loolu moo tax tey ñu ñëwoon département Nioro saytu li fi xew ci département bi ndax nag ku bu dara xewee ku ci nekk da ngay daw ci say mbokk bala ngaa dem ci au niveau national. li xew ci réew mi dootul affaire u affaire u sénégalais yépp la tous les fils filles du Sénégal ñoo war a jóg bokk ndey bokk bàyyi comme ni ñu ko gisee ci pale bi va et vient yaa ngi ci pale bi ku gis Idriss Seck gis Ousmane Sonko gis keneen gis keneen gis keneen ñëpp ñëw dugg waxtaan ak président génn. ni ñun danañ jàppale président ci loi bi ñu war a voté assemblée nationale pour jox ko pouvoir yoo xamante ni dana mën a def di dindi ci trois mois yi ñu jëm ba lii mu bëgg a jëlee ci réew mu jëlee ko fi parce que jàpp nañ ne bu Sénégal yëpp man ko nekk benn. jàppale président Macky Sall ci combat bi Sénégal dana gagné corona incha allahu rabbi. parce que ku mel ni Tahirou Sarr su génnee ci poche am un milliard du directeur général bu amee direction nguur gi. publique duul ministre duul koo xam ne dafay njëkkalante guddi ak bëccëg ñu naan def na lii wala def na lii ci réew mi non non c'est un homme boo xam ne dafay dimbali Sénégalais yi man bi ma xamee Tahirou ak léegi moo tax ñi koy attaqué daf may jaaxal bi ma xamee Tahirou Sarr ak léegi man na 10 ans ci li ma ko xam mooy tabax ay juma ci li ma ko xam mooy defar ay hôpitaux ci li ma ko xam mooy équiper ay hôpital ci li ma ko xam mooy jënd ay ambulance di may di joxe ay camion ceeb partout ci réew mi këru kilifa diine goo dem da nga jàpp ne Tahirou Sarr foofu la bokk soo demee Layeen laa nañuy wax ne ñoom ñoo ko moom seen bopp fenn foo dem ci réew mi donc ma jàpp ne ñu bàyyi di attaque ay attaque crypto personnel su président lancé un appel ay doomi réew mi jóg ku mel nii Tahirou Sarr ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que comme li ma waxee ci gars yi ñoo ci am ku mel nii Ali Mané def na lu mel noonu dans le département de Nioro mu ngi koy def ci Sénégal aussi partout mais ku mel ni Tahirou Sarr boo génnee un milliard de francs CFA ne maa ko dimbalee Sénégal wax dëgg yàlla nit ñi dañ laa war a sant dañ laa war a gërëm parce que c'était pas forcé man jàpp naa ne ci lima ma xam ci Tahirou du tontu ay waxu attaque def na lii wala deful lale ci li ma xam ci Tahirou mooy dimbali te yàlla tax ndax li muy def ci réew mi te du ko wax. journal du ko wax li may wax ni su ko déggee dana ma mere parce que moom buggul ko wax li muy jëf waaye dama bëgg nit ñi xam rek de man laa yaskuru naasa laa yaskuru allah ku gërëmul nit doo gërëm yàlla te ku gërëmul yàlla nag boo dee dugg safara donc ñuy attaque nit ñi jël seen alal di ko dimbale nit ñi nañ ko arrêté Tahirou nitu ku baax la nit kuy dimbale ay nit la nit kuy def social la damay insister encore ci kaam parce que damay gis ay nit di ko attaqué Ousmane Sonko ki nitam nañ xam ne nekkatuñ ci dynamique gu politique ndax Tahirou du politicien li muy liggéey bitim réew moo ëpp foofu li muy liggéey Sénégal soo demee à l'étranger ci ngay xam kan mooy Tahirou bu dee doomu Sénégal nag nangu ne moom Sénégal la toog ci réew mi tukki rek moo koy génn bitim dem mooy tax mu génn réew mi ak liggéey su ñëwee toog ci réew mi di dimbale Sénégalais yi jàppale président. su ko président gërëmee fukk na xam ne sénégalais yi gërëm nañ ko mille fois